bismillah taslimu baaqin karimin qaadali karaman ala nasirin basirin qaadali ma mbokk yi kon mel ni foofu lañ daane woon démb fu sëñ bi doon tëjee jëmmi xasida ak safaru bamsa sin junna te mooy dafa waxoon ne taslimu baaxin sëlmalug yàlla mi fee sax ba faw tëdd fu bàyyeekoo karimin tey aji tedd bala nga koo ñaan mu jox la yàlla moomee tudd al baaqi tudd al karim nee na woo womatal na lii ñeel ma karaman ay tirangam may ne ma tirangam yi nee na sëlmalam nag ala nasirin yàlla na ko sotti ci kaw yonent bi nga xam ne mooy aji xupp ña weddi ci safara waaye basirin mooy aji bégal ña ko gëm ci aljana yonente boobu woo matal na lii ñeel ma maddi sama tëbbu xéwal gis nga kon li ko yàlla defal xaada lii këraman waaye gis nga li ko yonente bi defal xaada lii maddi di sëñ Tuubaa dafa yéeme léegi nag jëmmi xasida gi muy safaru bamsa sin junna foofu la daanee ay baytam maanaam foofu la yem léegi nag mu bëgg laay def loo attention ci baatab junna ak janna ndax dégg ngeen Sëñ Tuubaa ci xasid yu bëri rawatina yu may taggee yonente bi da ngay déggee mu ne muhammadun wasilati wa junnati xanil ahadi wal asawa jinnati nee na yonente bi mooy sama wasila bi dox sama diggante ak yàlla waaye mooy sama pakk mooy sama défendre bi may aar ci lépp lu lor waaye mooy sama aljana léegi mu bëgg laa indil foofu di la xamal ne baatab junna ak janna bokkuñ janna aljana lay tikki na nag pakk lay tekki muy li lay aar dox sa digganteeg dara dox sa digganteeg mbir loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax junna moo tax ma ne bi dammil jiimi ci dammu jiim gi mooy jiim gi da nga koy maas maska lonk au lieu ko ngay fataa jiim gi déedéet dañ koo maas da ngay def ju maanaam doo def ja ndax boo defee jara ne yàq nga ko loolu la ñuy wax jinaasu xayru taam mu ñaari baat yoo xam ne ñoo tolloo xaraf waaye lan moo lay wutale benn maska sakaluha maanaam su fekkoon ne jinaasu taam la sakkaluwaa xaddaduwaa tartiibuwaa lépp ñoo koy bokk waaye nag bii nag sakkaluwaa rek la moo leen wutee maanaam masque yi masque yi ci boppam maanaam sakkaluwaa ay muy masque yi rek genn masque lañ wutee bii ja nga xam ne dañoo fataa jiim gi bii nag dañ koo maska maska lonk muy ju moo tax comme safara si safaru bamsasin junna la mu bañ nga koy jaawlanteeg safaru bamsasin janna moo tax mu ne safar gi nag nga xam ne 1342 ci laa ko taayif mu toll mu 1342 euh, ci gàddaa yonent bi ñin ñii di ko firi alhamdulilahi rabbil alamina maanaam at mii man nga ne daanaka diggante bi rek téeméeri at la bokku ci maanaam téeméeri at lay war a tolloog ñu ngi ci 1442 kon loolu itam tawfeexu suñu borom la moo tax ne bi dammil jiim ci dammu jiim gi au lieu que nga fataa jiim gi waaye da koy damm ne ju mu ne nag safar gi pakk la ci man guy dox sama digganteeg xan kulli ma wëlis lépp loo xam ne yéesu dana naqari nga xam ne lu lépp lu may naqar rek safar gii ma taalif tuddee ko safaru bam sa sin junna moo dox sama digganteeg loolee di ma naqari fa tabarakallahu ba du yegg si man aw wala yëdru muy lore loolu itam safar gi dox na sama digganteeg loole aw yëquru wala muy ware loolu safar gii ma taalif dox na sama digganteeg loole ba du yegg si man nga xam ne kon loolu mooy pakk pakk mooy loo xam ne maanaam mënoon naa na sa kaw ci xeetu lor ak waxi nit ñi li ñuy wax sa der lépp waaye xasidi gi moo ko aar ba nga xam ne loolu du yegg ci moom moo tax mu ne aw yemkur wala luy pexe aw yufsid wala luy yàq maanaam lépp lu lu may naqari wala muy lore wala muy wore wala muy pexe wala muy yàq loolu safara bam sa seen junnatun gii ma taalif ci 1342 ci gàddaay yonent bi moo dox sama digg ak loolee ba di ñëw ci man aw yaxoolu moo ba tey safaru bam seen junna gi dox na bay na naasi mi ci diggante aji yi maanaam doon na pakk bi dox bay na naasi mi ci diggante aji woyi xaatay ni ñaari alxasiidatay ni ñaari xasidi yi doon na loo xam ne dafa dox ci digganteem wa bay na bi ak diggante boromam nga xam ne kon léegi lu bëggoon a yàq diggante sëriñ bi ak boromam safar gi moo ci dox <laughs> lu bëggoon a yàq diggante sëriñ bi ak boromam safar gee ci dox. nga xam ne kon mooy pakk bi nga xam ne lu bëggoon a kàttanu sëriñ bi ci yoon wi mu nekk mooy yoonu yàlla bëgg dem ci yàlla ah safar gii mooy dox diggam ak loole maanaam aar ko ba nga xam ne loolu di ci sëriñ bi. moo tax ne safar gi doon na loo xam ne aw yëxoo doon na loo xam ne dox naa bay na naasi mi ci diggante aji wëy xaatay ne ñaari alxasidati ni xasida yi wa bay na rëbbi ak diggante borom nga xam ne kon jëmmi safaru mam sin junne gii mu taalif mooy pakk bi dox digganteem lépp lu naroon a yàq diggante sëñ bi ak borom ba tax du yegg ci yàlla safar gii maanaam moo moo lay dagaase mooy pakk bi la mooy pakk bi ar sëñ bi waaye nag wa dox na safar goo xam ne ba tey doon na safar goo xam ne mooy ki dox bay na kitaab bi diggante sëñ bi ak téere bi nga xam ne kon lu bëggoon yàq diggante sëñ Tuubaa ak alxuraan bëgg koo ayibal safar gii di safaru bam sin junna mooy dox sa digganteeg loolee ba nga xam ne doo mën ci sëriñ bi dara waaye boo bay na xam ne kon diggante yonent bi ak sëriñ bi ku ko bëggoon a yàq wala nga bëgg cee dox naan da ngay njëkkalante bi maanaam jëmmi safar gi mooy dox sa digganteeg euh, jëmmi safar safaru bam sin junni gi sëñ Tuubaa taalif mooy dox sa digganteeg loole nga xam ne kon sëriñ bi lii pakk la ci moom waaye nag wa bay na jundi yi ak diggante soldaaram ya alxaalibiina ña di way not wa bayna hisbi ak diggante kuréelam ba al muflihoona ña di way texe te walaahu yàlla wakiilun aj seedal ala maa naqul ci lii lépp nga xam ne wax naa ko fu ne du ko xam nga dalaa wax ne jëmmi xasida gii maanaam bi mu sottee mooy li nga xam moo dox sama diggante lépp lu may xari ak lu may lor ak loo xam ne day dafa waru wala luy pexe wala luy yàq moo dox tam diggante ki way ñaari xasida yi ak diggante boromam ak diggante alquranam ji ak diggante yonentoom bi ak diggante malaayikam yi nga xam mooy wa inna jundanaa la umul xaaliba nga xam ne lépp lu yàlla sàkk malaaka moo ci ëpp doole ndax waxoon naa leen benn malaaka rek boo déggee mooy ñoo not ñëpp yàlla nee na kenn xamul nuñ toll wa maa yaxlamu junuuda rabbika illaa huwa maa yaxlamu ñoom sunu soldaar ñoom ñoo not ko wax kon benn malaaka rek mën naa tukkal aduna benn malaaka mën naa yóbbu ñëpp safara wa maa arsalnaa alaa qawmin min ba'dika min jundin min as-samaa'i wa maa kunnaa jëmmi malayka yi maanaam jëmmi safara gi moo dox diggante sëriñ bi ak malayka yi nga xam ne kon doon pakk bi koy aar malayka yi nga xam ne mooy ñu not ñu mooy ñu not lépp waaye ak diggante kuréel la yàlla bi nga xam ne mooy ñu texe ñi te yonent yi jiite leen ñu baax ñëpp jiite leen daal di ne lii ma wax ne nag safar gi moo ko def nee na yàlla seede na ko kon du seede loo mbindeef yàlla seede na ko kon gis nga ne safar gi safar gu ama am doole la nga xam ne yii mu tuddal la yëpp benn bu ci nekk su fekkoon ne diggante sëriñ bi ak malayka yi ak ñu texe ñi ak diggante borom wala diggante yonent wala diggante alquran maanaam am na kenn ku ko bëgg a xañamal yàqu ko xasida gi mooy dox lu diggante mooy dox ci diggante bopp ba nga xam ne kenn mën a ko yàq kenn mën ko yàq su fekkoon ne am na koo xam ne dafa woor wala muy pexe wala muy yàq wala muy lore wala muy indilu naqare jëmale ko sëriñ bi xasida gi moo koy aar ba du yegg si moom daal di beneen nag mu ne bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mu ne maa ngi tàmbali sama xasida gi ci tur yàlla arrahmaani buur bay xewlaa kon bépp mi def ci àdduna arrahimi buur bay ko soob ci àlaxira salla yàlla na julli allah yoo yàlla ala wa ala ali ak ñoñam ña wa sahbihi ak tango dolli ko la tasliman dolli wóolu gannaaw bi ñu tàmbali bismillahi rahmaani rahim julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ña ak sahabaam yépp mu ne laa ilaha amul benn buur illallahu ndere yàlla alquraanu alquraan kitaabullahi moo téereb yàlla bi muhammadun muhammad te muy yónent bi rasulullahi mooy ndaw li yàlla yónni jibrilu jibril aminu waxyillahi mooy ki nga xam ne yàllaa ko wóolu ba di ko dénk wax yu wa ahlu badrin waa ahlu badar jundullahi ñoo sandaaru yàlla yi te walaahu lii ma wax walaahu moom yàlla wakiilun aji seedal la ma naqulu ci lii lépp nga xam ne wax naa ko ci biir xasida gi nag yàlla defal na ma ko <laughs> nee na maa ngi leen di waxal ne maa ngi leen di xamal ne amul benn yàlla maa leen di xamalaale ci biir wax jooju ne alquran na ngeen xam ne mooy téereb yàlla téereb yàlla daal bi nga bëgg xam mooy alquran téere yu njëkk yëpp ñu ngi ci biir alquran alquran mooy jëmmi téere bi la sëñ Moussa Ka di wax ne sëriñ ci yëpp ay naaqis lañ bambara kay kaamil alquran noonu la mel alquran téere yëpp ñu ngi ci biir jëmmi alquran alquran mooy téere bu mat bi moo tax kon mu ne alquran mooy téere bi yàlla bi waaye nag Muhammad ndaw la lu yàlla yónni Jibril nag mooy ku ñu wóolu ci wax yu yàlla amiinu mooy koo xam ne dañ ko wóolu wax yi laay ci wax yu yàlla nga xam ne kon malaayka yi bëri nañ lool waaye yàlla jibril la ci tànn muy tànneef doon seen seef nga xam ne kon mooy digal malaayka yi ca dara bu sell ba bis bu ne moo leen di digal ñiy def moom jibril ci ndigal ak suñu borom tabaaraka taala yàlla yàllar bi ko nag tuddee ko sàmma amiinin ci quwwatin inda sama arsi makiinin mutaan sama amiinin nga xam ne foofu jibril la ci yàlla jublu mu ne kon jibril mooy ku yàlla woolu ba di ko ba di ko dénk wax yu yët kenn ku nekk yonent ak lim la dikkal li ko dalee ci aadama ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye waa ahlu badar ñooy soldaaru yàlla yi daal di ne walaahu yàlla wakiilu aji seedal amaan naqul ci lépp loo xam wax naa ne bismillahi maa ngi tàmbale sama xasida gi ci tur yàlla arrahmaani buur bay xéwalaa ko mbir mi na bismillahi rahmaani rahim léegi day tàmbaliwaat beneen xasaayit xam nga indoon nañ safaru bamsasin junna léegi nag mu ngi war a indi safaru bamsasin jannatun janna mooy tekki aljana waxoon naa leen mooy jinaasu xayru taam mooy ñaari baat yoo xam ne bii junna la ñuy jàng bii janna même booy xool seen lépp toll la benn masque rek ndax bii dañoo dañ koo lonk bii nag fataa jim bi kon nag tabarka la loolu moo leen dafa bañ nga koy jaawale moo tax dana wax sax ci jeexantalu xasida gi moo tax mu ne safaru bamsasin lii mooy safaru bamsasin jannatun aljana la nga xam ne kon safaru bamsasin aljana la ci moom ni safaru bamsasin junna doonee pakk bu koy aar ci lépp lu koy lor noonu la safaru bamsasin jannatun maanaam doonee aljana ju neex ci moom moo tax mu salaatu baaxin karimin bi salaami ala xayril bariyati man abdal huda wa ala fadaani allahu bil fujaari munsu naxaw maasaa ani wa hadaani sikruhu bi ola gis nga salaatu baaxin bu ci tàmbalee da gis ne salaat la koy tàmbalee moo tax comme xasiday cant la daanaka salaat rek koy tàmbalee salaatu baaxin jullig yàlla mi fee sax ba foo tudd fi bay ko te gis nga ñaari tur yi boo seetloo moom lay gën a indi ak alkarim parce que dafa digg tur yàlla moo tax mu ne salaatu baqin yàlla mi fee sax ba foo tudd fi bay ko karimin tey aji tedd bala nga koo ñaan mu jox la bi salaami jullim nga ànd koog salmal ala xayril bariyati na ko sotti ci kaw ki ngeen ci mbindi fi man mooy ki nga xam ne abdaa feeñal na alhuda njub waalaata mu kawe moom yonent bi salaasam ni nu jullig yàlla mi fee sax ba foo tudd fi bay ko tey aji tedd bala nga koo ñaan mu jox la julleem gu ànd koog sëlmal na na na ko def deng ci kaw yonent bi nga xam ne amul sikk sàkk mboolem bindeef yëpp moo ci gën yonent bi salaasam bindeef yëpp moo ci gën mooy ki feeñal jëmmi njub waaye ba noppi moom ci boppam mooy ci kawe ñëpp waala goog mu jubli jëmmi yonent bi moo kawe ñëpp waaye nag moo feeñal jëmmi njub ndax bi mu ñëwee rek ci la njub judd salli ala babil huda nga xam ne kon bi mu ñëwee rek maanaam ci la njub maanaam wulida wulidal huda nga am na ñoo xam ne sax buñ koy taxarifal di melal juddoom bi dañ naan wulidal huda mooy yonent yi bi mu juddoo rek la njub judd wulida judd na alhuda njub salli ala babil huda mooy buntum njub kon kooku mooy yonent bi moo tax salaatu baaxun jullig yàlla mu fee sax ba foota du fi béy ko kërimin te aji tedd bala nga koo ñaan mu jox la bi salaamin julleem nga ànd ko sëlmal ala na ko sotti kaw ki ngeen ci mbindee fi yàlla man mooy xam ne addaa fii ñun na ak njub bi mu juddoo rek la njub judd wa alaate mu koy moom yonent bi fa daaniya jot na ma allahu yàlla bil fu jaari kaccoor yi mun su naxaw diirub ba nga xamee ne jëmale na ci man jëmale na ñoom kaccoor yooyu maasaani lu may naqari nga xam ne kon kaccoor yi lañ jëloon ci lu may naqari loo ne mën na maa faat ñu jëmale ko ci man léegi nag faat gañ ma bëggoon def suñu borom dafa dafa jël lañ jëmale ci man këpp ko seen kaw maanaam ñi far ñi far faatu ñoom nga xam ne kon naqar wi ñu ma naroon teg suñu borom da koo soppi ci ñoom mu doon aw naqar ci ñoom nga xam ne kon li li li ñuy wax rek mooy xay du yem ci bopp borom bari na ku jël musiba bëgg a pexal nit ndeke doo man ci moom dara yàlla day jël pexam rek këpp ko sa kaw parce que moo la kon sëriñ bi noonu yee ko doon pexal yépp jël lu koy naqari ba noppi ko jëmale sëriñ bi suñu borom dafa delloowaat naqar gu mu ma ne fadaat ya jot na ma jot mooy loolu rek mooy ku ñëwoon nar laa suñu borom defal la pexe ba nga génn ca moom sax mu far dee nga xam ne kon yow wala ba buy dee de am leneen ay dee waaye du doon yow ndax suñu borom dalaa jot moo tax mu ne fadaaniya jot na ma allaahu yàlla bil fu jaari ca kàccoor ya mun su naxaw diirub jëmale nañ ci man maasaani lu may naq rek la ma yàlla jotee nga xam ne kon mënoon nañ maa faat waaye yàlla moo ma jotee xam ne kon du ma faatu waxa daani gindi na moom yàlla sikruhoo ci alquraanam ja bi xon ci ak kawe nga xam ne kon li ma tax a yéeg ca pays kawe nga xam ne kawe genn rek la te mooy kaweeg yonent bi ci laa yéeg waxa daani gindi na moom yàlla sikruhoo ci alquraanam ji bi loxon laa ci ak kawe nga xam ne kon alquraan ci laa jaare gindeeku ci ak kawe nga xam ne kon man sëñ Tuubaa léegi kawe léeg-léeg nga dégg mu ne euh, sunu borom kattaba laahu tabaaraka wa taala anna kaatiba haasil huruf yi xaddamahu laahu ala jamii al alamina ma jiital yàlla moo jiital ki bindi araf yi ci kaw mboolem bindi fi bindi ko noonu moo tax mu ne sunu borom gindi na ma ci alquranam ci ak kawe nga xam ne kon léegi sëñ Tuubaa ma nga ca kaw tabaaraka la raamat qulaatiya durri qablu fansarafoo wa qaada lillahu ma lixtaara fan faala Sëriñ Tuubaa dellu tegaat si ne raamat doon na jéem a sàkku bañ ma yóbbagut ca géej ga ak bi ma nekkee ci géej gi yëpp ba jamono jii may wax ak yéen ma ne leen raama doon na sàkku xulaat ya ñi nga xam ne woy bañ lañ ma doon nañ jéem a sàkku duri samak lor xablu ci lu jiitu gis nga avant mooy bañ may bëgg yóbbu ci géej gi ak bi ma ci géej gi yëpp waaye léegi nag maa ngi fii ci njaarim kenn sàkkootul ko ndax mënatu ci man dara dem nañ ba lagge seen cër yëpp lagge ci man dem nañ ba nga xam ne mënatuñ maa gis dem nañ ba nga xam ne bëggatuñ maa gis fexal nañ ma lu ne waaye sottiwut moo tax mu ne a doon na sàkku ye ñi nga xam ne dañ maa bañ duri sama lor xam lu ci lu jiitu ba ma nekkee ci géej gi waaye léegi maa ngi fii ci njaarim waaye bañ ko sàkkoo itam Sëñ Tuubaa nee na sottiwut moo tax mu ne fan sarafoo ba mu sottiwut itam fan sarafoo wëlbatiku nañ dem dem nañ ba toq ci sëriñ bi léegi nag ñu ne nañ ko bàyyi comme pexe mu ne def nañ ko yóbbu nañ ko gànnaar ngir borom xam-xam fa nekkoon ñu ne su fekkee wilaay lay jaay rek nañ ko fa yóbbu ndax ñoo ko ëpp taalibe ñoo ñoo ko ëpp xam-xam kon nañ ko yóbbu foofu kom géej gi moom tëna fa ñëpp tabarkalla raama doon nas jéema sàkku xulaatiya ñi nga xam ne dañ ma bañ dur yi sama lor pexe mu ne def nañ ko xablu ci lu jiitu waaye fan sarafoo ñi dal di wëññeeku dem manuñ ci man dara risin tamba nag yàlla womatal na ma ko wa qaada womatal na lii ñeel ma allahu yàlla maa lépp loo xam ne ixtaara tànnal na ma ko lii ñeel ma fan faxalaate mu defu loolu la wax nuunu mu noonu mu a mooy loo xam ne dafa defu na ko yàlla womatee rek la defoo nga xam ne jéematu xaarantu sax yàlla moom lum def rek mu defu <laughs> moo tam ne yàlla matal na ma lépp lu ma tànnal te ko yàlla tànnal kenn xamu nu mu toll ci ay xéewal ci ay abadaat ci lépp sëñ bi matal na ko suñu borom jox ko xéewal yépp moo tam ma ne waxaada may na waxaada matal na lii ñeel ma allahu yàlla maa lépp loo xam ne iqaara tànnal na ma ko mooy bëggal na ma ko tànnal na ma ko lii ñeel fan faxalaata mu defu womatu na ci coobaram daal defu noonu na ko na ko yàlla defee rek noonu la defoo <laughs> man sëñ Tuubaa bu surtout bégalees na ma ne anna rasulallahi naka yónnentu bi yàlla bi ci boppam kat a ah, takal na la ndombak tànk gu rëy xaddama ni jiital na ma nee na daal xibaar bu rëy boo xam ne mbégte la comme nañ ko defee woon ci juddu juddug yónnent bi jinne yéeg fu waay toll ci kaw asamaan yaa ngi dégg xibaaru mbégte kanaa yéegu leen ne bis ni tey ki ngeen ci mbindeef judd na takkal nañ ko garaatu nu boobu yàgg tey jii la feeñ nag a leer goo xam ne penkook sooy yépp daj na ko suñ tubaa nee ne noonu lañ ma fekkee fii ci njaari manit béglee ma ko ay haatif yoo xam ne dañ maa béglee na ma bis ni ki tey moom jiital nañ la léeg-léeg mu ne yónente bàkko wax léeg-léeg mu xam nga def xuttu bi xidmati na ñii liggéeyal yónente maay pin loolu yónente baa ma ko defal moo tax lii moom mu ne xebaar la xebaar nag mën naa doon ay jinne mën naa doon loo xam ne digg kàddu gi nii rek waaye doo gis jëmm ja loolu moom boo déggee bégale na ma rek bégalis na ma rek mooy loo xam ne xaatif la moo tax téléphone bi mu génnee ñi di ko xaatif ndax téléphone booy war téléphone yaa ngi dégg kàddu nit ki mais doo gis jëmmam ji loolu ñoo ñu xaatif kon nag li lay bigal man ngaa dégg bég mu lay bégal waaye nag mënoo gis jëmm ja moo tax mu ne bu surtout bégalees na ma ne anna rasulallahi nako yonentu bi yàlla bi xaddama ne jiital na la kon bégal gi am na bi jàkkaarloo na ma wax ko yàlla jàkkaarloo na ma wax wax ko doomu aadama moo dëgër bopp moo tax benn bu ci nekk da waaye su ko neexoon na yàlla def na ma ko rek waaye léemu ne yónent bi léemu ne yàlla li léemu ne dañ ma ko bégale moo tax ma ne bégale si nañ ma ne na ko yónentub yàlla bi kat xaddama nii jiital na ma te wa anna rabbiya naka sama borom xabbilaa aj nangu la xomri sama dund gépp bi na bi ci darja yónent bi salaay salaam nee na mboolem fan yi ma am yépp bi ma juddoo ba keroog may sangu suuf ngeen gëñ may gi ci saayir amul lenn loo xam ne jëf naa ci lu neexul yàlla lépp sama borom nangu na ko lépp aw tiyaab la lépp aw yiw la lépp aw tiyaab aw yiw sama borom daal sama fan yëpp nangu na ko waaye ci daraja yonent bi salaay salaam kooku nga xam ne sama fan yëpp moom yàlla moo ko nangu ci daraja yonent Muhammadul mooy Muhammad mooy ko xam ne dañoo sant léppam xayru xalqillaahi mooy ki ngën ci mbindee fi yàlla yi duuna miraaj ci lu xam nga yonent bi gënam moom kooku kenn du ko werante ndax yàlla wax ne wa xaatima nabiin mooy ki mottal yonent yi yëpp ba yonent bi ne laa nabiyya ba'dii beneen yonentu dootu ñëw sama gannaaw waaw beneen yonent dootu ñëw sama gannaaw kon kooku mooy Muhammad mooy ku ñu sant léppam mooy ci ngën ci bindeef yàlla yi te gën gim gën man sëñ Tuubaa ma wax ko te yàlla def ko loolu amul werante ñëpp xam nañ ko doona mira ci ru benn werante Muhammad moomee sala yàlla julli alay ci moom mooy faal ji yàlla mi nga xam mooy mooy aji xam kattan ji tëliwut dara lottu ci dara yàlla moo xaada dana wommatee bii ci sama jëmm ji annu balaa woy xelu ñi nu bala mooy maanaam ñi nga xam ne seen xel yi dafa dafa ñor dafa ñor seen xel xam nga waxoon na ci Mawahib ne moom day tagg yonent bi waaye du ko taggee comme annu balaaw yi annu woy xelu xeluña ta ñor xel nga xam ne lu ñu wax rek kaddaat gémmiñ ngir seen mën a wax nee du ma taggee yonent bi ba ma am ma daxtu balaa yi du ma ko taggee way xeluñu ko doon taggee waaw. annu balaa bu ñu ko waxee rek mooy ña nga xam ne léeg-léeg mën nañoo wax sax ba wax lu ñu wartu wax wala annu balaa bu ñu ko waxee mooy ko xam ne day tagg nit waaye ci xel la koy teg sëñ Tuubaa xam nga danoon wa annuhu doonu xaqulun afkaar yonent bi kenn du ko takk ci xel a ak xalaat nee na ko loolu moo tax mu delloo ci baat boobu ci mooy bi ne wamaam moo dox ko nu balaay taggeewuma ko comme ni ko way xel ñu daan defee nga xam ne kon tagg ñi na yonent bi kawee na xel tax mu ne xaada dana wommatee bii ci sama jëmm ji xam ne ci la leen di wommatee an balaa way xel ñu <laughs> cëy ne yàlla yàlla julli ci kaw yonent boobu yàlla mii aji am kàttan te moom mi nga xam ne dana wommatee ci sama jëmm ji way xel ñu daal di ne saxaadati sama texe xat jara daw na aqlaamu rabbi ci xalimaag sa dogal ga xalimaag sama borom ga mooy xalima ga nga xam ne lu mu bind rek jeex na te suñ tubaab boo waxee nag texeem dañ koo bind ca umul kitaab dootul far falaahi bi fadlillahi fii lawhi jara bi xayri miha in doona makrin wala qafi sëñ tubaa nee na samam texe mën a leen ci mbaaxug yàlla daw na ca alooja ca juróom-ñaareel alooja te nee na bi xayri miha in ci lu dul far ma ngi ko wax ci midaal yi te nee na duuna makrin wala qafi pexe amut ci damaa jël engagement ragal itam amut ci engagement la yàlla def na ko ba noppi wax na feneen ne sama taxe bind nañ ko ci lawhul mahfuz waaye itam doon gi ma doon alhamdul xadi itam lu soxla ci lawhul mahfuz ku am gis-gis am kasfu da nga gis ci lawhul mahfuz ñu bind ne kii di ab jaama yàlla la buy lépp sax na ci lawhul mahfuz moo tax ñi amul gis-gis rek waaye ñi am gis-gis ñëpp xam nañ piyeg suñ borom yi lan moo fa nekk ak lan moo fay daw moo tax mu ne saxaadati yi sama texe xat jarat daw na ak xalaamu rabbi ci xalim ak sama borom ga biha ci alwa ja nga xam ne kon maanaam ci jëmmi ja ci la ko yàlla bind te ko fat ci umul kitaab moo tax ma ne xat jara daw na aqlaamu rabbi ci xalimaag sama borom xalimaag dogal ga ca alawa ga maanaam ca la daw mu bind ko na man taxe naa man ahmadu te nee ne wa bi sabili ci yoonu sama borom bi wa kafaani fegalee na ma rabbi sama borom bi sabili ci yoona mu jub ci la ma fegale subbulaa ñall ñall yi moom nga dégg alquran ne wa annaha siraati mustaqima fattabi'u yonent bi mooy yoonu jub bi topp leen ko waaye nag wala tattabi'u subula bu leen topp ñal yi mooy yoon yoo xam ne jëmuñ fenn yoon yoo xam ne jëmuñ fenn wala tattabi'u subula fa tafaraqa bikum an sabili saalikum wasaakum bi laalakum taxaloon kon yàlla dafa dénkaane ñu topp yonent bi mooy yoonu jub waaye nag dafa dénkaane ñu moytu yoonu ñal yi nga xam ne kenn jaru fa moo tax ma ne wakafaa ni fegal na ma rabbi sama borom bi sabili ci yoonu ngu jub ci la ma fegalee asubula ñal ñal yi kon da nga ci dégg ku jaar ci yoonu jub rek da ngay mucc ñal kon nag lii tax nga mucc ci ñalle yi mu yoon yi bon yi fokk dangay jaar ci yoon yoonu baax ku bëgg a ci ab dëkk da ngay jaar ci tëli bu baax bi waaye jaar ci tëli bu yoon woo xam ne baaxut sa mën naa dem ba mabbu sa oto mën naa dem ba fëtal àll bi tabarkalla bëri na ñoo xam ne tey euh, li tax ñi accident ak yëcc aju yëpp mooy dañoo jaar ci yoonu baax rek fu ne foo jaar ci àll bi gis nga màggal Tuuba boo xasee ñëw kenn ku nekk fi ngay fëtal moom da jaar moom da ngay xëtt toolu jàmbur rek moo tax yu bëri foofu lay juddoo njakkalante bi lu dul jeex ku bëgg mucc ci ñal yi ak alako da ngay jaar ci yoonu baax moo tax ma ne wa kafaani fegal na ma rabbi sama borom bi sa biili ci yoonu mujj boobu ci la ma fegale asubulaa baax ñeel na yàlla mi fee sax ba faw xadiimin tey aji jiitu fu mu tàmbalee yàlla kaana nekkal na lii ñeel ma abadan ba faw nga xam ne lu ma soxla mu jox ma waaye woo wommatal na lii ñeel ma maa loo xam ne kafaani moo ma fegal kulla man képp koo xam ne maxalaa pexe na suñ ne maxalaa mooy attaahu bil hiilati moo ko mooy koo xam ne dafa dikk ngir pexe koo xam ne bu ñu la laa nag mooy bekkoor mooy inqataal mataru mooy taw bi dog na dog maanaam tawtu waaye maxalaa gi moom li muy teg fi mooy pexe koo xam ne dafa dikk ngir pexe yàlla jox na ma loo xam ne ci loolee la ma fegelee képp kuy pexe nga xam ne kenn mënatul maa pexe xéewal yi ma yàlla jox may lu ñuy bëri bëri kenn mënatul maa pexe moo tax sama cant yëpp dama ko jël jox yàlla man sañ Tuubaa ci cante rek ci lay dëkk du ma mos a jàmbat fu ma war a jàmbat rek na ngeen yëg ne sant laa fa remplacé ma rawoon sukkur yi samay cant ak cër li bàqan ñeel na yàlla mu sax ba fa wata dafa béy ko xadimin tey aji jiitu te jiitu gu am fu mu tàmbale yàlla moom kaana nekkal na lii ñal ma abadan ci luy sax ba faw waxaada te woomatal na lii ñal ma maa li moomatal maa mooy li nga xam ne kafaa nii fegal na ma kull man képp koo xam ne maa la pexe nag kuy pexe nag yàlla jox na ma loo xam ne moom la fegal cay dégg nga ko loolu leer na mu ne jaaxattu daxran tawilan fi waaye nag wëbbin na bii xaadali rabbul waraani xala jaaxattu dëxëran ci jamono te yu ju yàgg fii lay daal ci biit noon yi wa ma da na sax jamono jooju wëy na xam nga dane jihaat naa jamono ju yàgg maa ngi ci biit noon yi di jihaat rek mooy juróom-ñaari at yu am ci géej gi ak lu teg xam nga lii ba mu la ko doon wax moo tax mu ne nag maa ngi fàttaliku ne jihaat naa jihaat ju yàgg boobu maa ngi ci biit noon yi wëy na sax loolu wëy na bu yàgg ñu ne ko waaw jihaat jang doon def moom mari si tàng ci am mu ne jihaatu jihaat naa dëxëran ci jamono taw yi lan ju yàgg fil xeddaa ci biir noonu yi laa ma daw te wéy na sax ci biir géej gi la ci jublu waqaada wamatal ah, na lii ñeel ma rabbul waraa yàlla muy borom bindee fi an nihalaa jam xo nixlatun la may yépp bi na bi ci darja yonent bi gis nga bi may jihaat jihaar ga la muy yàgg-yàgg te wéy na sax fu ne maa ngi nii ci na moom muy borom bindee fi mboolem xéwal lépp yépp ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam matul waqaada wamatal na lii ñeel ma rabbul waraa yàlla muy borom bindee fi an nihalaa may yépp bi na bi ci darja yonent bi naa jaanee diyante naag man allahu yàlla ah waa man ay at gis nga mooy lim nekk ci géej gi rek juróom-ñaari at yi ak lu teg lépp da doon diggante ak yàlla def ay munaajaat ay xasida di jëmee ci yàlla ak yonente bi wa fustu am naa li ma bëgg bii ci biir diggante googu yàlla ci at yooyu ma amoon ci tukki ba moo tax ma diggante yàlla ay xat waaye tuuf naa am naa li ma bëgg ci biir diggante googu ma doon diggante yàlla ndax waqaada wammatal na lii ñal ma ala yàlla ma xam-xam moom yàlla wa taxalima ak le jàngale is naxalaa bi mu ma joxee may yooyu kon yàlla bi mu ma joxee may yooyu rek ci la ma joxale xam-xam waaye ba noppi ak jàngale nga xam na kon nit ki balaa jàngale fokk mu am xam-xam waaw xam-xam bi ngay am ci ngay mën a sanc ay daara di jàngale ay daaru taxlim kon tabarkal jàng lu la moo tax waqaada woo mata na lii ñeen ma alal ma xam-xam wa taxlima ak xamlu ak xamle ak jàngale ismaala bi mu ma joxee may yooyu naa jaanee diyante naag man al alimu yàlla muy aji xam ji al alaamu tey xamaakoon bi mun fari dan doon ku wét waqaada woo matal na lii ñal ma min hu bàyyi ko ci moom yàlla xel man xam-xam naa fi xan buy aji jëriñe juhilaa boo xam ne ñëpp dañ ko réeree woon kenn xamul xam-xam boobu xaybu la mu ne yàlla mii aji xam ji diinte nag man moom mi mii xamaakoon bi nga xam ne dara fàdduut ci moom yàlla lépp la jàkkaarloo moom kooku mooy xalaam kooku moy ki nga xam ne mun fari dan la dafa wéet waaye doon ko xam lépp dara na buur ko waaye doon aji xam ji peeg lépp bu ànd laa xadaata bikul seen man yàlla moomi moo matal mu bàyyi ko ci moom xam-xam buy jëriñe boo xam ne nit ñëpp dañ ko réeree woon xam-xam bu kenn xam-xam boo xam ne xamuñ ko sax ba di ko maanaam woy xam ñëpp xamuñ ko woon ba di ko jàng yàlla xam-xam boobu la ma matal boo ko tax xam-xam yii ngay gis ci téere yi moo tax naa jaanee diinte naag man alaalimu yàlla muy aji xam ji ala alaamu tey xamaakoon te soxlul ko ku na lii baxari fa géej ga saaqi damin mbir mo may borom liggéeyal ca géej ga li man ñeel yonente ba nga xam ne kafaanee fegal na ma xaw ma nit ñoo xam ne kulluhum ñoom ñëpp sahila dañee saggan sagganlu maanaam dañoo fàtte fàttulu seen borom moo ne fàttuñ ko sax sahila buñ ko waxee mooy koo xam ne moo ne fàttuwut yàlla xam nga yéefir ñi même lu ñuy bon bon fàttuwuñ yàlla de waaye dañ koy fàtte fàttalu la mooy fàtte fàttalu mooy nanguñ koo jaamu parce que loolu fàtte fàttalu la yow ma tarawnaha tasalu kullu murdiatin ama ardaat gis nga yasxalu tasxalu saxala mooy koo xam ne bu ñu ko waxee xelam nekkut fi koo xam ne tey boo amoon li ko gën a jege sax li fi xelam nekkut moo tax sax maanaam boolewut ko ci boppam gis nga alxuraan nee na yawmal xiyaam da nga gis kuy nàmpal doomam sax du ko bëgg du ko du ko bëgg a jege soxnaam nangam yooyu yëpp loolu mooy ki nga xam ne maanaam xëy na xelam nekkatu fa maanaam moom boppam rek la tal nee na nag noonu ñoom sahila da nga koy fira maanaam ay xafala yaqfulu maanaam koo xam ne dafay saggan saggan nga xam ne kon saggunut ne la Sëñ Saaliw daan firee rek wala takoonu ka lasina nasullaha fa ansaahum moom dafa daan firee bu leen mel ni ñi nga xam ne dañoo fàttali dañoo fàtt fàttali woon yàlla yàlla fay leen seenu fàtt xam nga yàlla du fàtte waaye da leen di fay seen seenu fàtt ñoom moo tax mu ne yàlla gindi na ma fa géej ga ndax mënoon naa euh, dëng mënoon naa moy mënoon na jaar ci fëtal noon na jaar lu dul yoon waaye mu gindi ma fa géej ga ba lam ma santoon lépp matal naa ko waaye di liggéey yonent bi nga xam ne moo ma fegal nit ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo sàggan sàgganlu fàttuñ seen borom waaye dañ doon sàggan sàgganlu ñu sàggan lañ ndax noon ñu ko yóbboon ci géej gi yëpp dañoo sàgganoon daan nañ ko wan lu ne ci kanam daan indi ay góor jigéen ñu ñuy sëy ci kanamam lu ne ñu di ko def tabaarkalla loolu lu lu lu naqari net le bokk yi xadaane gindi na ma allahu yàlla xendal bahri fa géej ga saa xidamin mbir boobu mooy borom a liggéeyal li man ñeel yonente ba nga xam ne kafaani ya fegal na moom yonente bi xaw ma nit ñoo xam ne ku luum ñoom ñëpp sahila way sàggan sàgganlu lañ sàgga sàgga sàgganuñ sax waaye nag dañee sàggan sàgganlu ngir fàtt di fàtt fàttalu seen borom te fàttuñ ko léegi nag mu ne taslimu baqin sëlmalug yàlla mu fee sax ba faw xadimin tey aji jiitu te jiitu ji amul fu mu tàmbalee laa sarika déet xeeti génn aji bokkaale loxo di ko ñeel sëlmalam ala nabin yàlla na ko sott ci kaw ki nga xam ne mooy ku ñu soloo ki mu yonente bi salaay salaam rasulin mooy ndaw li nga xam ne yónni na ko moom yàlla ixtadaa mooy ki nga xam ne jub na kocc waalaata mu kawe mu ne sëlmalug yàlla mi fee sax ba faw tey aji jiitu te jiitu am fu mu moom mi nga xam ne kenn du ko bokkaale ak lenn mu ne sëlmalam xam nga waxoon na salaatu léegi nag mu ne sëlmalam yàlla na ko yàlla sotti ci kaw yonente bi nga xam ne mooy ki nga xam ne sunu borom da koo soloo ba nëppi yónni buñ ne nëbbi mën naa doon ko xam ne dañ ko sonal mais yónniñ ko waaye rasul boo gis nabi la waaye nag nabi nag du doon rasul moo tax ne sëlmalug yàlla mu fee sax ba foofu tey aji jiitu gi an fu tàmbale moom mi nga xam ne kenn du ko bokkaale mu ni sëlmalam yàlla na ko yàlla sotti ci ki nga xam ne mooy ku ñu soloo ko mooy yónente bi mooy ndaw li yàlla yónni waaye mooy ki xam ne jub na waaye bënëpp moo kawe ñëpp moom yónente bi saasam kon gis nga salaatu ko tàmbale woon ci salaatu baqin karimin la ah, sarika lahu ala sëñ Tuubaa ku xarala la ci wàllu bind fa tabarakallahu yàlla na ko yàlla fayal moom jëmi sëriñ bi radiyallahu